ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي جنا بني سانتا يالا جولي تيون انتبي صلى الله عليه وسلم تي ماي جيم ني ماي ني تيوار في سانتا مغا خامنا في فمو كما سواي امون فمو يام تبارك الله نيو سنيو كاميرامان بي دي الحاج دو اك تي تام بوك يوم كو بوكال ييب تبارك الله سري ساليو اك سخنا جينابا ني لين زيار لين مو ملني اي تاي دانيو نيوات اندات اك يين تي بنن ايميشن بو بيس bu ñuy tuddee arrijal rasul ndax ku wax yonente wax saxaaba yi naka noonu itam saxaaba yi nga xam ne ñoo daan àndal yonente bi tabarakallahu nekk ñu yiw ñu sell ñu baax ñu fas yéene cee seppi kenn tey waxtaanee ko mu di aboubacrine siddiq ku wax aboubacar wax juddu ba ku wax aboubacar wax mbaax ga ku wax aboubacar wax dëggu ga waaye ku wax aboubacar wax tabe ga fa tabarakallahu waaye balaa loolu dañ ci dalal suñu mbokk suñu xarit suñu di oustaz gamu barakallahu di borom xam xam diko bax diko yiw bo xamne xam xamam dafa majj ci jëm ci walu woow waye bala do oustad ñing lay nuyu di la ziar di contane bax di la wax na ñu bayila nga nuyu ak mbokk yi ñu dooro dug ci waxtaan inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ah, mbokk yi ñi sétane ñu leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq te di leen baalu xaq ah, di jiital ci nuyoo bi oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziara di la wàccee sa wàccu waay ah, di la wax ni kontaan ni ci dalal bi ñu dalal di nuyu caméraman bi Elhadji ak ñi mu ko àndanteel ñëpp ñu ngi leen di ziara di leen baalu xaq di leen baalu xaq ah, comme ni nga ko waxee rek ñu bëgg a waxtaane Abou Bakrin Siddiq ci émission bi nga xam ni mooy rijaalu xawla rasul mooy gaa yi nga xam ni dañoo dañoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, comme ni ko sa maam ji waxee rek in kunta baakin fakki ashaaba nabi maa dumta baaxin surtout xayra nidaami maam Seydi El Hadji Malick dafa ni boo yow boo waree jooy na jooy saaba yonent bi sa alayhi wa sallam waaw ñi daan ànd ak yonent bi ñoo ñoo jara jooy ndax ba muy metti ñoom la woon kon ñu war cee waxtaani kenn muy Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala anhu xam naa jërëjëf oustaz ni nga dugg am na solo dafa melni mbir mi ala daw na ba paré neex na mu mel ni Aboubacar Siddiq lañu wara waxtane comme nim leen ko waxee sank ci émission Ar-Rijaal Hawla Rasul oustaz buñu ñu bëggee xam Aboubacar Siddiq mo ron kan waaw ah, Aboubacar Siddiq mawliduhu wa nasabuhu Aboubacar Siddiq ñu ko doon woowee Siddiqu Rasul ci doon deggal yonente bi alayhi salatu wa salam mo doon ànd ak yonente bi mu andon ak yonente bi ca gàddaay ga jëm Medina jëm Madinatul Munawwara moo nekkoon premier xalifatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo njëkk a tuub ci góor ñi te mooy kenn ki nga xam ni yonent bi bokkoon na ci fukki ñi mu bëggaloon ci àjjana Abu Bakrin Sadiq kenn la ci euh, turam nag mooy Abdullahi ibnu Ousmane wala ñu daan wax Abdullahi ibnu Abi Quhafa waaw waaye turam dëgg mooy abdullah ibn osman ibn amir ibn omar ibn kaab ibn saadin ibn taymi ibn murrata ibn kaab ibnu luy alquraysi atay atamimi waxiila ismu atiq waaw am ñun turam dëgg mooy atiq wa kunyatuhu hiya abu bakrin loolu mooy ay maamam abu bakrin bu ñu xoolee daje naa yonente bi ci maam sallallahu alayhi wa sallam laaxam na Ousmane laaxam na Afaana fii Muxirata wa Atiqan inda Murrata Faaruqan bi kaabihim Abu Bakrin ci maam bi ñuy wax Murrata fa la daje ak yonent bi salaa alayhi waaw mi ngi juddu euh, ci Màkka la juddoo ginnaaw ba nga xamee ni Abraha da takkoon na xare mooy atum ñayma euh, ginnaaw ñaari at ak juróom benn weer ci la Abu Bakrin judd kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñaari at ak juróom benn weer ah moom nag nekkoon na baana baana ci la daan yëngu te bokkoon na ci sangu Quraysh yi te bokkoon na ci ñi ci ëppoon alal jamonoy jaahiliya boobu sax islaam ñëwagul te abu Aboubacar musta jaamu xërëm musta naan sàngara loolu daal mooy Aboubacry. jërëjëf oustaz ubbi ba am na solo tabaarakallaahu wax nga abu bakar fi mu bokk ak yonent bi sallallaahu alayhi wax nga ñi tam turum deug deug deug deug kon liñ ci déggé moy tuddoon Bakar deug deug waye ñi tuddoon Bakar ibnu abi quhafata jërëjëf oustaz mu melni buñ xolé Bakar amna tur buñ koy takantalé deug deug koy tuddé siddiq siddiq moy ku deggu eh, da fay delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax né nit dina deggu deug deug deug bañ mujj ko tuddé deggu kat waye dina fena fena fena fan bañ mujj ko tuddé fen kat maanaam oustaz bu ñu bëggee xam Aboubacar lan moo waral ñu tuddee ko dëgg bi dëgg dëgg lu waral loolu Siddiq bi. Aboubacar Siddiq naa yenente bi diir bu yàgg. laataa muy dugg ci lislaam mu nekkoon koo xam ne ku dëggu la woon. koo xam ni ku daan matal kóllëre la. ku seeloon la tamit. waaye dëggu dëggal googu dëggu googu ñu ko tuddee. ba yàlla yóbboo yenente bi ca Isra wal la. ba yenente bi ñëwee. ñëpp weddi ko Abu Bakr Siddiq moo koy dëggal looloo tax ñu tuddee ko as-Siddiq lu iya, Yonent bi Musa wax rek danaan dëgg la waaw looloo tax ñu tuddee ko as-Siddiq ku dëggu waaw oustaz kon bu ñu déggee li tax ñu tuddee ko Siddiq dëgg-dëgg mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane ca gàddaayam nga jógee fa ñëw ñi dem ci Abubakar Siddiq ne ko sa sopp bi de nee na dem na ci guddi gi asamaan ñaar jël si waat ci guddi gi Abubakar Siddiq ne leen bu leen te ne wax jàpp leen ne dëgg la. te booba sax. gisagul yonente. ndeysaan dañ ko koo wax rek. mu ni fekkee moo ko wax dëgg. macha allah kon loolu dafay tegtal ne moom àndul woon ak yonente ak intérêt. déedéet àndul woon ak yonente pour leneen dafa àndoon ak moom lépp rek teg ko ci yoonu siraatul mustaqim yoonu waa xam ne bu dëgg la. Mhm. waaye oustaz ku wax Abu Bakar wax tabega. wax Abu Bakar Siddiq wax melokaan yi. Mhm. wax Abu Bakar si di tedd yi mhm. maanaam bu bëggee ñëw ci lislaam bu dëgg-dëgg relation bi nga xam ne moom amoon na ko ak yonent waaw lislaam Abu Bakr Siddiq nee naa la sànq Abu Bakr ànd naag yonente bi diir bu yàgg laataa muy dugg ci lislaam waaye ba ko yàlla yónnee Abu Bakr Siddiq mooy ki njëkk gëm ci góor comme ni ko sa maam Seydil Haaji Maalik waxee radiyallahu taala anhu xadijatun wa aliyun wa ibnu xaarisatin wa man bi daawatihi usmaanu zu salami mu ni ki njëkk gëm ci jigéen ñi mooy xadija ci xale yi la bu fekkee ñi ñu moom nga xam ni dañ leen doon wax ay jaam Seydou Ibnu Xaarisa moo njëkk gëm yeneen ji waaye waman bi daawati yi Ousmane Zou Salam ki nga xam ni ci sababu wootee ci la Ousmane Ibnu Affan duggee ci lislaam mooy Abu Bakrin Siddiq kon ci góor ñi Abu Bakrin Siddiq moo njëkk a gëm yonent bi salaa alayhi waaw maanaam loolu kon dafay wane jàmbaaru Aboubacar Siddiq waaw jàmbaaru te ba tey lim bu mag dugg nañu ci bokk na ci magu saaba yu ñu bari. dugg nañ ci ci diina ngir Aboubacar Siddiq. ndeysaan ah, ah oustaz tabarakallah kon Aboubacar Siddiq nekkoon na ko jàmbaar waaye oustaz xam nga Aboubacar Siddiq wax naa la ko sànq munoo wax Aboubacar Siddiq te waxoon melokaan ya booy xool amoon na ay melokaan yoo xamante ni tedd la yoo xam ne ñu ko ràññee woon ci moom la ngir mbaaxam ak jàmbaaram oustaz bu ñu bëggee ñëw maanaam ci sifaat Aboubacar Siddiq melokaan yi nga tënkal ñu ko oustaz. Aboubacar Siddiq melawoon na ay jukko yu tedd. ak melokaan yu rafet ko xamni ku dëgëroon gëm yalla wa ku dogu la tamit ko xamni xolam tamit pas-pas mi yiti won ku yaatu won xel la ku dëggu la comme ni ma la ko waxe won sam ku lewet la ko xamni jamono jaahiliya musa bëgg nan sangara lutax ñun ko lutax do doo sangara mo ni dama xamni lo xamni goku ni boo ko ak sam xel ko lolo tax mu ci won sangara musko koo naan ci bimu tuugul ak bam tuube tuubee ku daan bañ a sujjóotal xërëm la tamit daawul sujjóotal xërëm laata muy dugg ci lislaam ku daan joxe alalam la tamit waaw ku daan joxe alalam la ci yoonu yàlla mhm. dana bakkanam da ka daan joxe ci yoonu yàlla ku daan dimbali yonente bi la tamit sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaw ak ñu néew doole ñi ci lislaam ku mel ni Bilaal moo ko goreel dañ koy mbugal mbugal yu metti ya kon Abu Bakr Siddiq alalam da ka daan def ci lislaam léppam da ka daan def ci lislaam waaw da daan dimbaliwaate ku baax la woon ah, ku tabe la ku yaatu la woon waaw jërëjëf oustaz Aboubacar ku tabale woon ku yaatu la woon ku daan dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye itam yemu ci woon da daan dimbale tamit ñi nga xam ne ñoo wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moom dafa fekkoon ne alalam moom daawu ko booleeg lépp loo xam ne diine soxla na ko moo xam gileem yi mu yor woon ak lu mu a yor ci alal kon wax nga ñu ne su fekkente ne yonent bi soxla na day taxaw ci soxla yonent bi ba keroog soxla si di mat waaye oustaz da nga tudd benn baat sànq nga wax ne Aboubacar moom daanul naan sàngara oustaz bu ñu xoolee maanaam jamonoy saxaaba ya ku mel ne Aboubacar Siddiq nga xam ne daawul naan sàngara par rapport ak jamono bi ñu nekk léegi nga xam ne léegi sàngara comme ni ngay tànqee ndox naan ni mu la yombee noonu la ko nit ñi defee léegi oustaz tey ñooñu boo leen doon dénk ak par rapport euh, seen diggante ak Aboubacar Siddiq ñoom daan naka naanee sàngara tey loo leen di wax waaw xam nga sangara moom mhm. yenente bi lim ci wax rek alxamru umul xabaais mhm. mooy ndeyu ñaawteef yi mhm. bon bu la të rek boo ko bëggee mën a def del naan sàngara boo ko dee def rek léegi léegi tey nga nga def ko macha allah ndax dafa am waa jaam ko te yàlla bi euh, seytaane dafa ñëw ci moom fekk dañ ko boole woon ak benn xale bu jigéen pour mu faj seytaane fexe ba mu njaaloo xale bu jigéen bi wa da ko da ko bëggoon mu njaaloo xale bu jigen waji bañ du ko def mhm. mu fexé ba naan loo ko sàngara mhm. ba mu naanee sàngara si mhm. njaaloo na xale bu jigen di mu jele ci ëmb mu ni ko da nga mu fexé ba ni ko da nga ray sul dom ni lol lepp nan naan gam nan sàngara moko wa kon nan sàngara alhamdu umul khabais sàngara moy ndey ñawte bi bon bu la rek bo ci bëggee du fexé bay nan sàngara ah sa lol amna solo kon nag ñoo ko dégg ñu nañu ci sàngara waaye oustaz ku wax Aboubacar Siddiq xam ne moo njëkk a nekk premier xalif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. euh, loolu nekk grade boo xam ne moom la ko yàlla takkal euh, ci ñu njëkk a représenté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye oustaz bu ñu jàngee ci taarix foog naa Aboubacar Siddiq keroog bi nga xamante ne njëkk na nekk xalif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du càgg ne am na xutba bu mu xutba euh, xutba boobu mu xutba itam am na lu mu ci wax pour wane ne comme moom daal fol nañ ko waaye nekkul ne dafa gën moo tax oustaz buñu bëggé ñëw manam ci khutba bobu nga xamné mo aw bëgg khutba won ak importance bi nga xamné khutba bi am nako ak li nga xamné mom moom lañ aw bëgg ci di wax manam oustaz buñu bëggé ñëw ci loolu nga tënkal ñuko waaw waaw Aboubacar Siddiq ginnaaw bi fi yonent bi joggé jullit ñi dañoo booloo wut ku leen jité ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ni ñetti nit ñetti jullit sax bu andé di dem ci yoon mhm. nañ wax nañ wut kenn mu jiitalee mu nekk seen amir mhm. léegi nag bi yonent bi génne àdduna il faut ñu wut ku ko wut pour muy doxal mbiru jullit ñi ñu tànn Abu Bakrin Siddiq ñu jaayante moom muy première xalifa ci yonent bi ndax moom moo gënoon a jege yonent bi ci nit ñi waaw te moo leen jiitu woon ci lislaam comme ni ma ko waxee woon sànq waaye bis ba ñu ko falee Abu Bakrin Siddiq dafa xutba xutba bu yéeme li mu wax ci xutba mooy ayyuhan naas inni qad wullitu aleykum wa lastu bi xayri mu ni yéen nit ñi jiital nañ ma ci yéen waaye gënuma leen te naa suñ jamono tey buñ la falee rek da nga yaakaar ni yaa gën mu ni su ma rafetalee nangeen ngeen ma toog bu may fekkee damaa ñaawal nag ngeen jubbanti ma waaw kii moom yaakaar naa ni njiit yëpp waroon nañ ko cee roy wallaahi mu ni asidqu amaanatun dëggu mooy kóllëre waaye wal kasi bu xiyaanatun fen nag moom war la maanaam nit da wax ba ñu jox la benn post nee na nga fexe ba la nga dige woon nga def ko ci. waaye boo ko deful rek war nga war nga ñala ko joxoon. mu ni wa daañu fii comme xaw yi yu nañ nii. ci doyee di ci léegi ki nga xam dafa néew kàttan ci yéen. kooku ku dëgër la ci man ba ma jox ko àq. waaye wal xaw yi fii comme daañu ko indi xataa axusal xaq mi ki nga xam ne dafa am kàttan ci yéen am alal am doole. kooku ku néew doole la ci man. ba ma jël sama àq ci moom. waaw. insha allah mu ne laa yadaamu xawmun al jihaada fi sabilillah illaa darabahum allah bi dul mu ne aw nit du ñu bàyyi di sonn ci yoonu yàlla lu dul yàlla wàccee ci ñoom toroxtaan waaye wala tasiu alfahisa fii xawmin xattun illaa amahum allah bil bala aw ñaawtiif du feeñ ci aw nit lu dul yàlla sotti leen balaa ci boobu réew dëkk boo xam ne mbonte gi dafa bari ñaawtiif yu bari fa yàlla balaa la fay sotti mu ni atii'uunii maa ataatu llaaha wa rasuulahu topp leen ma feeg maa ngi topp yàlla ak yonentam fa izaa asaytu llaaha wa rasuulahu falaa taa'ata lii aleykum mu neen fekkee nag damaa ñëw indi leen leneen loo xam ni bokkut ak li yàlla wax ak li yonent bi wax bu leen ma topp sallallahu alayhi wa sallam wa bi zalika badaat xilaafatu abi bakrin wa qaada al umma al islamia wa watada arkaana bi azmin saabitin wa ixlaasin azim nii ci la abu bakrin continuer yor xilaafa gi teg ko ci yoon ak dëggu ah di yamale ñëpp ki am ak ti ñak waaw ki neew doole ak ki am kàttan ni dal la yore won khilafa bi ba ñu génnee ak jërëjëf ma sha allah leral yi amna solo ñi di len fàttali ne yeen ngi and ak seen émission ar Hawla Rasul ñi dalal suñu xarit suñu wonal suñu soppé di oustad gamu di borom xam-xam mel ni ñi signalé ne li ñu amoon waxtu jeexna waye bala balaa oustad ñu bàyyi la nga tagoban xamna waaw ñu santaat yàlla rek ñu ci ah di sant yow ñu dalal di la gërëm ah di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk sa xam-xam yàlla barkeel la yàlla defal la yiw ak sutura ak xéewal di nuyu ñëpp ñi ñu doon seetaan di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk jàmm ci réew mi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Oustaz kontaan nañ bu baax mbokk yi lii moo nekkoon seen émission Ar Rijaal Hawla Rasoul ñu àndoon ceeg suñu soppe suñu xarit suñu wëllëre Oustaz تبارك الله كلام دون دفع الإميشن بينك مهسين سب سين خارج سين ولر بابا كرسالة نيلن جوخ ديك داجي بابنين إن شاء الله كونك بمحمد وببنته وببعلها وبنيهم الشبتين أعلام الهدى وبصحبه وتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جرجب كونتا نباح جرجب الله يالفايب جرجب إن شاء الله كونتا نباح